ok, ok. Imaginez, bon, maman. Le bon, le bon, le vrai, le vrai, le vrai. Ma génération, ma génération, ma ma ma ma ma, ma génération, ma génération, ma génération, ma ma ma ma ma, ma génération. Bonjour amis téléspectateurs et bienvenue dans Ma Génération ça fait un bon bout de temps Ma Génération li ko waraloon nag moom mooy yenn programme yu bëri yi xew Sénégal koy dàkk diir ko fa dóor yi ñu bëri dañ ko soxla ci réew mi surtout ñi ngeen xam ne dañu nekk ci wàllu événementiel loolu moo waral de temps à autre ñuy xaw mais ñu ngi ciy jégalu bu baax te saa yu ñu amee opportunité ñëw ngir waxtaane loo xam ne dafa ñeel Sénégal dafa ñeel musique euh, bu Sénégal surtout hip hop bi nga xam ne moom la ñu bokk di ko def on a dès qu'on a

donc c'est la raison pour laquelle ma leen di présenter euh, kenn koo xam ne monument la ci hip hop bu Sénégal c'est un grand à qui on doit beaucoup de respect te ndax lii tax hip hop juddu mooy DJing te DJing ñi ko njëkk def ci Sénégal am ko fi valeur bu ñu ko fi incarné créer group boole ci DJ il fait partie des pionniers si ce n'est pas le premier des premiers parmi les premiers à être derrière des platines faire réellement un travail de DJ reconnu par un hip hop il s'appelle DJ g depuis Froisse aujourd'hui G-Bass euh, ça fait un honneur un grand un réel plaisir de partager avec vous un plateau de télévision grand maa ngi lay ziar dellu ziar je suis flatté voilà on est là. mbaa yaa ngi ci jàmm ma bàyyi la nga nuyoon teg Sénégal yi. maa ngi sant yàlla bu baax di nuyu population Sénégal bi yëpp di nuyu communauté hip hop bi. Euh, rax ci dolli di souhaiter un bon début de carême à toute la communauté chrétienne. Mhm. catholique du Sénégal. incha allah dinañ ci dellu siwaat ci kanam tuuti ji bees moom la ne moom moo ans wu hip hop sénégalais bilan bi ñu lan lañ ciy jot a lan mooy nekk perspective aujourd'hui le hip hop regorge beaucoup de potentiel on voit des rappeurs prendre les micros les DJ derrière les platines pour faire ces produits mais il y a des personnes qui sont derrière le papier entre les ministères de fonds pour pouvoir nourrir cet art. Il fait partie des as de ceux qui font décortiquer les projets et qui leur donnent de la valeur. Il répond sous le nom de Amadou Falba de Africulture urbaine Amadou maa ngi lay nuyu. waaw Pape Sidi maa lay fay nuyu auditeur euh, spectateur spectatrice sur 2STV ma génération. def comme Jibes lu mu wax euh, ubbi émission bi ak carême euh, bi. ñaanal suñu mbokk chrétiens yi ñu dugg si jàmm génn si jàmm Sénégal ñoo bokk. donc je suis le seul à ne pas avoir fait ça hein. donc carême Moubarak à <laughs> toute la communauté chrétienne. Karam Moubarak ñu ngi leen di nuyu donc waxtaan bi tey li ko sabab moom mooy 30 ans bu hip hop Sénégal yéen ñi nekk ci seen kër toog di ñu seetaan te hip hop eh, teel leen ñor leen mbaa mu euh, intéressé leen bu fekkee vous avez la possibilité de nous joindre ce sera tout à l'heure ngeen wax seen xalaat ci li ngeen xam ci hip hop bi ni muy doxee est-ce que cela vous enchante ou pas euh, ci kanam tuuti dinañ leen permettre afficher leen numéro de téléphone yi ngeen mën a intervenir ci plateau bi waxtaan wi nag dañ koy door euh, ci li nga xamante ne moom moo di la genèse de la genèse c'est en 1988 euh, kii nan la ñu koy tuddee maison blanche xaw ma année blanche <laughs> <laughs> année blanche am Sénégal ñu bëri dematuñ école xale yi toog teg baraada ak kaas mode bu bees jóge hmm. États-Unis yi fraîchement xale yi bëgg nekk au diapason dugg ci au début c'était comment c'était juste pour le fun ou c'était pour dénoncer ce qui s'était passé pour cette année-là Jibes pour la genèse du hip-hop euh, En fait, le, le, le hip-hop a commencé, il ne faut pas oublier, par la danse. Mmh. C'est d'abord la danse qui était une, une forme d'expression. Ici au Sénégal hein? Oui, au Sénégal. Oui, ici au Sénégal. Ici au Sénégal, c'est entré par la danse, le breakdance notamment, donc qui était une nouvelle forme d'expression qui était en phase avec l'esprit les, de, de, révolte euh, et cette air qui soufflait à cette époque. Donc, euh, quand est arrivé le, le rap, mhm. justement, mmh ça n'a ça, ça, ça pas été amené le rap par, les, par, les, par ceux qui le font aujourd'hui. Quoi. Mm -hmm. Le mhm. rap a été introduit au Sénégal, faut pas l'oublier, par, par les, ce qu'on appelle entre guillemets les fils à papa. Mm -hmm. C'était les gens qui étaient à l'extérieur qui ramenaient du son. Mm -hmm. Donc euh, c'est comme ça que le rap a, a commencé à, à, être pratiqué par les jeunes de la CICAP, euh, notamment. Euh, les gens qui qu'on peut appeler les pionniers ñi ci gën a xër muy doomu baadoole yi boobu boobu du ñoomu amoon privilège am rap exact doomu borom barke yi ñoo doon am possibilité comme tu bien introduit c'était pour le fun mhm. exactement mhm. Euh, on connaît l'évolution que a eu après mais au début on peut dire que le rap est arrivé le hip hop par la danse et le rap ensuite mhm. et c'était pour le fun parce que pour preuve les gens reprenaient les textes en anglais ou en avant de commencer à écrire en Wolof. Mm -hmm. Donc le début du rap, c'était plutôt en anglais et en français. Mm -hmm. La nature a horreur du vide, un an, année blanche, les mhm. professeurs ne veulent pas aller à l'école.

Mm-hmm. mais soit maa woon année euh, dugg première année année blanche am donc jànguñu. Mm-hmm. wala année bistop Mhm. donc du coup aussi j'étais jeune xaw woon dara si àdduna et cetera donc je m'en li mhm. grand yi nettali ak li ma gëstu sama bopp ak li ma côtoyé monde hip hop bi laa xam nan la demee woon mhm. euh, nan la demee woon li nga jot a gëstu li la grand yi ñoom ñu ko dund waaw ça s'est passé comment ñëpp d'accord nañ ne comme ñu ko jibes waxee ça a commencé par la danse vers 84 85 dégg nga ti récemment discuté nañ ne ma mu ngi danse Awadi idem Matador il te dira la même chose donc après Matador dëggaat naa ko aussi mu ne à moom bi mu dansé graaf na. xamuñu ko def na son. Matador waaw waaw man xamu naa ne graaf na euh, deux c' était fond dans le truc. Mm. nekk na fi beatmaker aussi moom xam naa xamoo ko musuma ko yëg waaw nekk na fi beatmaker <laughs> mais après mu nekk na fi slameur boobu yëg nga ko. waaw slameur naa ko ah. <laughs> après rappeur donc du jël individuellement rek y' une particularité boo xoolee nongo di waxee yenn affaires yi que bokk na ci groupe bi kii bokk loolu bu ñu waxul doo ko xam quoi ñun jibees rek ñoo la ko mën nettali donc mm-hmm. leneen aussi li ma gën a marqué mooy femmes yi xam yenn saa dañuy wax hip hop bi mais jigéen ñu ngi ci woon dès mm-hmm. sax ay jigéen ñu woon ci hip hop bi mm-hmm. je pense que loolu aussi lu am solo la te bu ñu xoolee ne victoire bi hip hop bi gën a am au départ 88 90 peut-être mën nañ 4 5 mais tey bu ñu gisee am nañu association du hip hop au féminin génn ci par exemple. qui recouvre 75 membres. Mhm. ça dire y' am na am na lu changé. exactement waaw lu ñu xam waaw lu ñu xam rek. bien sûr je pense que loolu moom bokk na ci li ma gën a marqué quoi mais c'est vrai que man sama eh, histoire hip hop euh, rap sénégalais laa njëkk xam. avant may xam rap français wala rap américain. Mhm. à l'école dama jàngee. waaw waaw waaw xam nga dañoo mën garaaw garaawlu. dañuy xam hip hop bi Galsen bëgg a di la sonal ak kaane yi matin midi soir alors que Galsen lañ gën a xam. ko ñoom parce que 84 90 91 internet amul ci dëkk bi. Mhm. donc noo koy xamee comme ni ko Xorké waxee surtout pas des parents qui sont à l'extérieur ou bien des grands frères mënoo xam affaire bi. te temps yii dégg su benn Déguiba wala benn Keyti wala benn xumaan amee benn journal hip hop Sénégal yëpp dañuy yendu këram pour lire journal bi mhm. loolu dégg naa ko donc bu dee information bi voilà nga am ko rek mais xam nga a <laughs> planète rap <laughs> planète rap radical l'affiche <laughs> radical de source voilà loolu dégg naa aussi daal remarqué naa ko information bi du comme tey mm. et puis aussi lu jafe la woon uh-huh. ñoo rek def émission télé wala rajo wala duggee ah non. ci lu nekk. Ah, lu nekk RTS boole leen ah, loolu aussi mbokk na ci li ma rappelé wu et j'étais là te au maa ngi bëgg a Pape Gueye. Mhm. parce que euh, def organiser benn marche. pour mhm. hip hop bi am émission télé. man année boobu ma ko fàtte parce que maa ngi am 18 ans wala 19 ans maa ngi woon ca ba. ay direct skizo xumaan. xam nga ay manu. Mhm. Bilal euh, ndeysaan dem si yàlla. c'est la seule d'ailleurs bi mu mës a def sama àddina. marche hip-hop la seule marche où vous réclamiez. une émission, à, la RTS parce que c'était. Euh, raisonnable c'est normal c'était un service public. Mhm. suñu impôts yi ñooy fay pour télé bi c'est normal mu diversité. bien entendu loolu xel nangu ci ascension wu hip-hop Sénégal parce que quand je me rappelle bien euh, ñi ñu fi xam tey ñu nekk ay stars. ci musique sénégalaise ay Baaba Maal Omar Pène da nga leen doon seetaan télévariété des fois ñu am ay émission spéciale j'étais plus petit mm. nga toog gis télé ñooñu rek nga doon gis quoi ay mm. Fatala Ndiaye ay mm. kii la am donc ñooñu la télé bi doon wane mais est-ce que bu ci télé bi télévision a teg loxo xëy na dina dina jël beneen auteur te li ma bëggoon intervenir ma ci jibes mooy ñun ñëpp dégg nañ ay sawnu PBS mm-hmm. après ñu dégg Pifras mm. après ñu dégg Daara J après ñu dégg euh, Dabrans mm. ñooñu moom mooy suñu génération ay BMG suñu mm-hmm. génération rétro mm-hmm. bu ñu demee ba à un moment donné l'arrivée de Rapadio a mm. tout fait chambouler mm-hmm. ci paysage boobu break boobu lu gënoon la wala baaxul loolu moo ñu ralentir c'est difficile à euh, aujourd'hui tey soo xoolee conséquences yu mu indi on peut dire que non, ce n'est pas ce qui, ce qui est le, la meilleure chose qui est arrivée au hip-hop. Mmh. Mais il faut, il, il, faut se dire aussi qu'on est dans, dans, une expression libre, quoi. Tu vois ku nekk am nga sañ-sañu euh, di di exprimer wu selon nu mu la neexee. ñoom ils sont venus avec l'état d'esprit c'est vrai hip-hop c'est c'est c'est un mouvement assez rebelle parce que jeune. Mmh. mais le public ici il n'était pas assez mûr pour comprendre loolu parce que on a on avait un public qui venait euh, euh voir des concerts hip-hop mais mhm. c'était pas un public hip-hop parce que c'était mélangé il y avait beaucoup mhm. de jeunes filles à cette époque les mhm. enfants tu vois c'était vraiment festif quoi c'était programme la woon en fait dem concert hip-hop mais depuis loolu bu mu bu mu bu mu ñëwee ça ça dissuadait les gens et l'information aussi euh, il euh, y a pas eu cette pédagogie pour expliquer l'esprit même de, de, de, de, ce nouveau genre de... ça peut s'expliquer, on pas de tribune pour pouvoir communiquer là-dessus. Exact. Bien entendu. Donc euh, il euh, y, y, a plein de paramètres qui ont fait que ça, ça dafa indi en fait euh, jaxasoo si xelu ni ñi. effectivement et comme que parents yi tamit à cette époque ñoo doon jënd foo foo foo foo foo foo jënd cassette yi pour seen mhm. doom yi. Mhm. da nga doon dem marché Sandaga cassette bi waroon génn parents yi ngay ngay fekk foofu ñuy ràng. di xaar produit bi cantine soit Gadiaga mhm. soit cantine Talla Talla Diagne taala 222 B52 non <laughs> non B224 224 non man B52 ah, loolu loolu lamb la waay loolu du Gadiaga Talla Gadiaga la defe naa am na ku ma ci dem non Talla Diagne pas Talla Diagne pas Talla Gadiaga waaw Gadiaga c'est après c'est après c'est après kon en mhm. fait dès qu'il moo ko xamal parce que je crois que c'est c'est qui a été qui a distribué le, cette compile. Et comme c'était une compile qui avait aussi bien marché, marché oui. qui avait marqué, parce que Diamond il ne faut pas euh, l'oublier aussi, il y a eu les compiles qui, qui ont bien marché. Il y a Exactement. eu Petit Frère, il y a eu Sénérap 1, 2, mm-hmm. il y a eu Code B, mm-hmm. il y a eu Dekel Rap. Donc c'était une période euh, où il y avait de la, beaucoup de créativité, quoi, en mm-hmm. fait. Yes. Donc. Euh, on peut dire qu'aujourd'hui, comme je, le, je, vais me répéter, que ça a été un point négatif, mais en même temps, ça a, ça a été une rupture. Mm -hmm. qui a un peu redistribué les looloo dàq nit ñi. voilà léegi desal ñu ci suñu bopp ñu nekk. un cercle restreint de personnes qui consomment qui se tapotent le mm. yi même nit ñi nga fay fekk. Amadou euh, quand quelle analyse en fais-tu par rapport à cette question. a wax mooy ñu il est surmédiatisé. Mm-hmm. ma loolu dugamuma ko dama koy daax. Mm-hmm. parce que c' pas que ñu ngi jàll rajo ñu ngi jàll télé qu'on médiatisé. Mm-hmm. xam nga bu tegee 2 heures du matin fekk ñëpp neloon nañu nga baal ma expression mel ni kuy dawal film porno. xam amul chance. <laughs> dafa am benn heure d' audience liggéey dafa am heure. Euh, prime time exactly loolu ab hip hop bi amagu ko. te xool xoolee ñuy peese si dëkk bi kenn laam-laameewul ne am nañ doole wala amuñu doole. ay jeunes parce que ci ay loi la jaar. Sénégal da ngay ñëw nit ñi ne gëmuñu politique. moi je parle de politique dans le vrai sens du terme. waxuma la politique politicienne. mooy ab mbooloo ni dajaloo am seen mbébét ne lii il faut ñu ñàkkante ko nguur gi parce que ci dëkk bi lañ dëkk dañu war a jël suñu wàll. Mhm. rapport français yi bi loi bi ñëwee je pense que c'est sous Jacques Lang. c'est un ancien ministre de la qui crée fête de la musique. qui fait Jacques Lang def naa euh, am quota loo gis skyrock am. skyrock jékki-jékki rock comme son nom l'indique. Mhm. après nekk rajo rajo rap. Mhm. di se clamer numéro un. Euh, exactement di réclamer numéro un du rap alors que c'est pas une rajo euh, hip hop à la mhm. base comme son nom skyrock. comprendre loolu c'est des démarches politiques loo ay nit ñoo war a xalaat. pour yóbbu affaire bi foofu alors que mm-hmm. fii travail boobu lañ dul def mm-hmm. yenn saa nit ñi dañuy yaakaar ne comme tu l'as dit dans ton introduction way dañuy dem ci ministère yi du c'est pas ça le problème le problème mooy lan fay def mm-hmm. ak lan fay wax su dee da ngay jéem parce que beaucoup de gens ay xam nga paa yi ay années 70 dañ génn école temps yooyu sa doom boo xalaatoon ne sa doom day nekk rappeur magistrat ngay bëgg bu nekk avocat wala <laughs> c'est pas un problème sa doom nekk rappeur wala lutteur wala footballeur whatever wala enseignant. Mhm. Ah, le monde du divertissement paye eh, bien. Ah, c'est un travail. Mhm. c'est que dafa connotation négative mais léegi ça dépend aussi ci nit nga nekk avocat être quelqu'un qui n'est pas bien. Mhm. du dépendre ci loolu donc problème yooyu yëpp dafa nekk ci dëkk boo xam bul fàtte aussi. l'islam bi dafa am doole dëkk bu traditionnel la christianisme bi am fi doole et cetera donc am na yoo xam te mënuñu ci pousser de trop mm-hmm. il faut que nit ñi aussi adapté aussi réalité socioculturelle yi donc li nga gis mu valable ci France mënul valable li valable Amérique li ma bëgg a yokk si Rapadio bi par exemple man j'étais un grand fan de mm-hmm. mais man faute bi pour man du ñoon pour man groupe yi nga xamante ne ñu défendre bi leen rapajo songee wala évasion bi mu amee jéemuñu survivre ñoo ñoon ñooy problème bi pour ban ñoon ñoo nekkul woon ci lu dëgër mhm. suñu nekkoon ci dëgër gëm seen bopp par exemple ñëpp xam nañ ne rapajo bi mu sànnee bomb yi am na groupe yu intelligent yoo xamante ne ils l'ont géré diplomatiquement tontu wuñu si dañoo gérer après après bi songu gars yi mais il faut nga am dégg il faut pour comprendre nag xam nga mhm. xeex bi fu nekk tey groupe yooyu jaruma ñu tudd mais ñi ngi continuer rapajo moo fi nekkatul mais li ma si par exemple pas d'accord ma ci ak yow mais pas par rapport à groupe je veux dire par rapport ak public bi. Mm. parce que rap bi amoon na benn succès d'estime. Mm. nit ñi venez. da nga bëgg a wax ne Rapadio dafa dàq public bi. oui plus ou moins. oui si c'est plusieurs reprises suñu concert concert wu ñeneen yi venait dans un esprit négatif c'est-à-dire dañ doon ñëw tas concert mm. parce que dañ doon ànd ak seen gàngoor suñu joué ba pare gars yi génnee jaase yi concert mm-hmm. c'est de de fil en aiguille de nit ñi commencé tere seen doom yi ñëw euh, concert rap yi euh, agresseurs yi commencé la plus pire hein bouche à oreille moi je mm-hmm. suis ñi ñi ñi xalaat ne côté négatif boobu en tout cas. Mm-hmm. Euh, ils en sont responsables. mais la chose positive qu'ils ont fait c'est qu'ils ont fait comprendre aux rappeurs mm-hmm. que ni le rap c'était pas que pour le divertissement. il y avait autre chose peut y avoir du divertissement mais mën na bañ a am message yu per yuy pervertir public bi mais ñu ñu stay euh, lu engagé lu rebelle ça ça ça a bien marché. mais bon loolu de je crois que c'est mën nañ ci débattre fii ba chacun va rester sur ses <laughs> positions. je pense pas que non non je pense pas qu'ils ont été les premiers c'est ce qui est l'importance du débat en fait. je pense pas que ça ils aient été les premiers à être hardcore. Mm-hmm. de deux. à dénoncer, à avoir mm -hmm. des textes euh, politiques. Par exemple, l'album de BMG est sorti avant l'album de Rapadio. Mm -hmm. L'album de Pifroise, l'album de PBS, tous, tous, tous ces albums, il y avait des textes politique. politiques. Mm-hmm. Hardcore. Hardcore. Mm-hmm. Ils ont amené le clash. C'est mm-hmm. ça qui a fait la différence. En fait. C'est ce clash-là qu'ils ont amené qui a, qui a, qui a, qui a euh, perturbé les gens. et qui a découlé après de, par, par l'abandon du public et par la remise en question. Après, ils se sont présentés plutôt comme des gourous, je trouve. Mm -hmm. et, et comme si le fait qu'ils bougon créer une communauté. Parce que plein de gens ont été influencés mm -hmm. par, par Rapadio, ils ont approché Rapadio, ils ont écouté leur discours, ils ont épousé leur discours. Et aujourd'hui, il y a des sons d'ailleurs qui sont sortis après pour les fustiger. Mm -hmm. Donc je crois que

noonu la mhm. te je ne pense pas que Rapadio nekkatu fi loolu dina fi jóge même dans beneen mouvance bu mel na am mu ngi am mais beneen forme jël rek mhm. c'est-à-dire que loolu moom ak hip ñoo ànd après ay nit lañ aussi il faut pas mu egg ci benn certaine animosité mhm. ñu reste ci cadre artistique cadre culturel je pense man loolu du déranger mais loolu par force day mel ni je un autre exemple ñi nga par exemple dëkkuñu Dakar tu toujours en commençant par toi. dañu am benn <laughs> fierté wu. wax nga loolu waaw exactement euh, parce que hip hop représente la. bien représente Bawol wala Louga wala Kaolack wala Thiès fi nga jógee. Mhm. même bu dee Dakar nga dëkk dafa am solo. parce que loolu aussi mooy sa euh, marque de fabrique. mooy sa exactement. voilà loolu ci boobu ma wax rek benn groupe underground bu jógee Bawol sax. Uh-huh. bu ñëwoon concert bi sax attan nañoo saaga. <laughs> exactement euh, ñu dem ba mu yàgg euh, après événement wu rapajo bi lan moo fi jaaraat lu gën a marqué nit ñi parce que boobu après bi ku nekk yor se CD nag wëndëng gi commencé gars yi commencé génne ku nekk ut say tentacule di jéem a xool noo exister parce que ça après déclic boobu exister la nit ñi doon bëgg. Après, il y avait l'air Fata, Dari Bibson, les clashs continuaient, prenaient le dessus. Les autres essayaient de faire leur propre petit bonhomme de chemin. Euh, les radios commencent à proliférer. une médiatisation mm-hmm. radiophonique commencé à mm-hmm. voir le jour euh, si yan événement la ñu gën a pour man li après époque boobu leen lu ma gën a remarqué mooy les départs mm-hmm. groupe yu bari tas na mm. nit ñi dem nañ boo xoolee tey rappeur sénégalais yi nekk kaaw à tort ou à raison parce que aussi ay magum jëm lañ man duma leen wax ci loolu ñoo xam lu tax ñu dem et je respecte leur position mais lu bëri remarqué naa ne départ yu bëri am na ñii pour des raisons familiales d' autres pour des études. réalité de la vie réalité de la vie. c'est aussi da lay dab ay mm-hmm. mag lañ et cetera on parlait de 88 nga ñëw je pense que juste après Rapadio époque bi amaat moom mooy euh, l'acte un studio avec des écouteurs takk waaye dëkk vite fait on des rappeurs du Sénégal se mm-hmm. retrouver mm-hmm. autour d'un mouvement qui s'appelle Y'en a mhm. et là le hip-hop du Sénégal se fait voir de notre œil ñi ko daan daawul déglu sax léegi di commencé waat di ko gën a bàyyi xel on voit les Xuman qui mhm. viennent rallier les Keyti les Kilifeu les les Simon tout le monde vient maintenant pour faire un mouvement pour dire li ñu doon wax noonu ci texte yi léegi hmm. dañ koy mettre en bu defe mooy bi ci topp bi gën a marqué àdduna bi ah je parle y mm-hmm. mm-hmm. y avait pas Y'en a marre mais il y avait fois. waaw foofu gars yi aussi mm-hmm. samp euh, participer bokk ñu daaneel Diouf. Diouf après 2012 Y'en a marre ñëwaat mais je kuy def science politique sax war nga jàng loolu. te man fierté bi ma ci am mooy. nit ñi di wax ne hip hop changé na régime. amul États-Unis amul France amul Corée amul Nigéria Sénégal la am te loolu aussi. man personnellement yenn saa yi du d'accord nit ñi ci mbedd mi parce que tey du ma gisee ñu delloo la monnaie a marre c'est pas juste. Y'en a c'est pas juste bi aussi malheureusement noonu lay doxee que tu aimes ou pas Y'en a marre c'est pas parfait man par exemple je pas Y'en a ci dispositif bi mais de cœur hmm. sympathisant sincère là man comme ni JBS wax sànq nee na marche moo tax mu dem man Y'en moo tax may marche man ñaari marche laa dem wala trois mais yanaa moo woote ma dem beneen marche du ko dem pour wan ne rek lu am solo la mais comme dëkk bi yenn saa aussi suñu victoire yanaa maar victoire hip hop bi la victoire hip hop bi victoire yanaa la mais yenn saa ni ko nit ñi di analyser man je suis peu euh, damay xaw a euh, am recul tuuti quoi du ma comprendre mhm. te toujours noonu la gars yi dañuy ñëw public bi day ñëw ne way dëkk bi dafa metti wax leen wax leen wax leen gars yi wax dem ci jeel ñu dóor ay livre bañu et cetera et cetera uh-huh. xam nga dëggati daa mën a tooñ day tooñ sama copain Simon nee na jolofoo live du jolofoo live jolofoo livre kat <laughs> yi xam nga di ko big up au passage quoi tellement ces gens pour quelque chose mais après ngay dox gars yi comme si dara mosu fee am mm-hmm. après nag on le fait pas pour la gloire c'est pas que je dis que Y'en a marre def ni dañoo war a jox loolu mais da am loo xam tamit

bi muy waaj a nekk euh, président en 2012 mu toog ci benn plateau de télévision il y avait je pense Mamadou Ibra Kane ah je pense mu ngi naan ko j'ai toujours eu de l'estime pour le hip-hop du Sénégal depuis que j'ai entendu Xuman dire sëma sëma la dëgg ji benn la mbalit bi ne palais la ñuy dem tuuri donc son excellence le président de la république du Sénégal il est bien conscient de ce qui s'est fait par rapport à hip hop du Sénégal. Hmm. xamoo ni ko bi. <laughs> bu bu ko fi euh, boobu euh, de de la musique du divertissement à l'engagement sur le terrain euh, en tant que professionnel de du du hip hop comment comment tu l'as vécu. tu étais fier, tu n'étais pas d'accord Comment tu l'as Si, si, si, je l'ai vécu avec beaucoup de fierté parce que euh, c'est comme j'ai dit, on a, on a commencé euh, dans le hip-hop, c'est d'abord pour cet esprit rebelle. Mm -hmm. Et le hip-hop est connu pour casser les codes. Quoi. Mm -hmm. Donc euh, c'était nouveau, ça choquait les gens que, que, que, que les, euh, que les gens comme soient plus explicites. Voilà, les lyrics <laughs> explicites. Voilà. Et, et, et, et pointe du doigt les, les tares de la société mmh. sur le plan social, sur le plan culturel. Euh, c'est avec fierté mm-hmm. qu'au mmh. qu bout du, du compte, mmh. tu te rends compte que ça sert à quelque chose, mm-hmm. ça a servi à quelque chose. Mm-hmm. Et c'était le discours même que, que, que que l'on faisait passer partout où on est allé en Europe, les questions, les, les, les, les, les plus euh, majoritaires, c'était cet engagement politique que le rap sénégalais a. Mmh. qui, que, que, que, les journalistes magnifiaient parce que justement, euh, c'est l'essence, cette essence même du hip-hop mmh. que les gens euh, en, en, en, aux États-Unis sont en train de perdre, mmh. euh, en Europe sont en train de perdre, mmh. et ici, euh, ça, ça c'est fort, ce, ce, fort impact-là. Mhm. On en est là parce que justement, on parle directement aux gens. Mhm. C'est ça qu'on le montage rap jollof. Mhm. Parce qu'on est passé du, du, du, rap américain au rap français en parlant directement aux populations. Donc euh, le rap a toujours été connu pour être un, euh, un moyen d'information, un moyen euh, de, de, documentation, un moyen de divertissement. Mmh. Donc pourquoi pas Un moyen de revendication, plébiscité par le monde entier aujourd'hui. Il ne faut pas retirer les mots importants d'une chanson parce que c'est retirer la, la, mmh. la, mm-hmm. balle d'une arme, quoi, mmh. en mm-hmm. fait. Donc. Euh, les, les, le, le, poids des mots est important dans les hip-hop. C'est pour cela euh, qu'on que on fait la différence entre des gens qui écrivent bien et des gens qui écrivent moins bien. Malheureusement, benn jour dama seetaan benn conférence bu ñoom Malal Taal ay ñoom Thiat doon def mm-hmm. Seattle. Euh, dégg nga Malal Seattle. Euh, université boobu nekk États-Unis damay fàtte nu mu tudd euh, te Simon di ko bàkkoo rek naan dem nañ Sorbonne. Sorbonne je pense ah Sorbonne dem nañ ba Sorbonne pour def ay conférences j'ai vu une une intervention d'une dame euh, au Seattle mm-hmm. euh, ci benn festival bu ñu amoon une dame s'est levée une américaine di wax ne moom li hip hop bu Sénégal di def. loolu la xamoon ci hip hop bi mu nekkee xale mais léegi la hip hop a changé foofu États-Unis ay caaxaan rek la ñuy wax te nit ñi looloo leen ci intéressé. Mm-hmm. donc ce qui veut dire que le divertissement sans raison dafay indiwaat. nit ñi ci consommer rap bi boo dugalee message ñu daw bàyyi dafa parce que ça les intéresse pas le message ne les intéresse pas on dirait que les gens ils veulent oublier le pro les problèmes ils ne les oublient pas ils déplacent suba day day ce qui veut dire que li nga doon wax léegi ci par rapport ak rapadio bi foofu la amee importance parce que la deuxième génération du hip hop sénégalais a bien apprécié le son ba tenir tête beneen air nga xam ne moom la ñu duggaat mooy maintenant nag concurrence bi génnee album la mm-hmm. gën a nice gën a nice euh, spectacle. Mhm. spectacle bii moo gënoon fees bii. Mhm. voilà air boobu euh, euh, Amadou. mooy air bi ñuy dund ah diggante depuis 2012 ba ba tey. waaw diggante 2012 ça fait 6 ans. maintenant jour pour jour nit ñi loolu la ñuy loolu la ñuy bàkkoo. waaw loolu lu am solo la ci bu ñu ko doon xalaat ci sociologie. lu am xolo la parce que fee bu fi nekk mais boo xoolee mooy débat wu ci hip hop mhm. diggante li ñu woowee boy yi ak grand yi. dafa am benn rappeur américain ba tudd Eric Sermon bu bokk bu ma lire benn article bu am solo bu doon wax ne ci hip hop kase la gis si àdduna ñuy wax ne waa ji bàyyil rap parce que mag nga. mais mhm. question boobu kenn du ko posé ci monde rock. kenn ko posé ci monde jazz. kenn ko monde ci yeneen mm-hmm. mais hip rek lay dégg nit ñi di foowee loolu naan Pape Sidi Fall da ngaa màgget mm-hmm. te déjà moom mënu koo comprendre culture boo xam dañuy wax nit ñi ñi te nit ñoo bi ñuy dem pour man foofu la premier euh, déchirure bi am. ci mm-hmm. nouvelle génération bi ancienne génération am par exemple oh, am naa 35 ans et quelques pourtant fa si normalement ci li ñu woowee jeune fa laa yem. mais sañoo wax non état d'esprit kese la ni ngay doxee hip hop tamit attitude la mhm. waxin beeg doxin bi philosophie bi et idéologie bi si ginnaaw mhm. pour man foofu dañ ko coche boobu dañ ko raté ñaari coche la hip hop bi raté mhm. mooy suñu culture u dëkk négoci ñu négociation bi war ba xam nan lañ ko mën a dugalee ci hip hop bi ba xamante ne du agacé dara ñu gérer ko ba mu dox ñu am vraie identité boo xamante ne dina répondre norme hip hop bi ba pare du Euh, pervertir suñu culture. Mhm. loolu je pense que coche boobu boo xoolee hip hop bi 90 ba 2000 dafa am ay xëccoo ak mbalax bi. Mhm. déggoo wuñ ci dara léegi sax la commencé tane nii je pense que mhm. loolu la njëkk a raté deuxième bi mooy li may wax nii léegi mooy ancienne génération bi ak nouvelle génération bi dafa war a am pont mais warul am barrière. parce que pont mooy séddale te instant yi problème musique bi yëpp comme li nga wax dafa am benn terme bu bees. gaa yi ne ay wala Manning léegi boo koy def foo de buzz dafa am lu muy àndal tamit te xam nga lu ma njëkk a gis mooy man école bi ma bokk ci hip bi leen laa gëm mooy jamais dans la tendance mhm. toujours sur la bonne direction mhm. man xam naa fi ma jëm bu baax mais fii nit ñi j'ai seen bopp njëkkanteeg temps bi ba qualité yi mu war a am du ko am après y des gens qui sortent du lot mhm. kenn sañul taxaw ne tey hip hop Galsen bi bi am mhm. yi nag ñu mel ni yow ñu mel ni man ñu mel ni ñoo jibees ñoo ko yore mhm. te loolu il faut que def bi mat mais j'ai ku nekk day xëcc sa côté yaakaar ne benn autoglorification te loolu day rey affaire parce que tey Pape bu daanoo bu ma xullee ba nga daanu su ma xulloo bi ñu daan après ji bees cercle la on ensemble on une communauté hip hop même bu dee am na ay divergence parce que divergence moom man dama ko gëm mooy doxal réew mais nañ ko teg ci ay argument mm-hmm. il faut que juste ñuy def gën a promouvoir la force de l'argument mm-hmm. et non pas l'argument de la force euh, grand bokk nga si ñi tàggat suuxat di ko def di ak beaucoup de sacrifices hip hop fii ci Sénégal mm. te yàlla def na nga nekk kilifa yor say njaboot di leen dundal ba tey grâce booy comme ni ko euh, Amadou waxee. nouvelle génération nouvelle génération bi. <laughs> moo gën ñoom buzz wala feu de feu de buzz wala feu de mm. maa ngi nuy waale waa Buzz Lab bu feu de bi ñëpp dinañ foog ne yéen la mais ci ngeen bokk. nouveau marié. voilà le nouveau marié Kana. <laughs> donc je me dis. Mm. est-ce que papa bi toog këram mu leer ko ni doomam écouteurs yi nekk si noppam dégluwul keneen ku dul rappeurs yi ñu ngi def si boppam est-ce que li ñuy def si boppam en tant que professionnel du hip-hop. et parents yaa ngi def différence boobu message boo boo bëggoon jox jeunesse bii dafay pap an lay doon c'est assez délicat pour toi hein? <laughs> bon pas vraiment parce que j'aime pas faire euh, ce genre de message ou être un messager mais par rapport à à li nga wax c'est période la rek ñun par exemple suñu suñu époque on travaillait beaucoup sur la scène. Mm-hmm. parce que c'était le, le, le moment privilégié boo xam ne on pouvait euh, avoir cette interaction avec le public mm -hmm. on n'avait pas autant accès à la télé mm -hmm. pour faire un clip c'était beaucoup plus dur donc il y avait beaucoup de, de contacts entre public et, et, et les groupes dans les écoles mm -hmm. tout, tout, pratiquement toutes les manifestations étaient animées par des groupes de rap mm-hmm. à cette époque euh, donc il y avait beaucoup de travail scénique aujourd'hui c'est différent Aujourd'hui, le travail, il est fait derrière le en décor ah. en amont. Mmh. C'est-à-dire beaucoup de travail de studio, beaucoup de travail euh, pour les images et beaucoup de travail sur les réseaux mhm. sociaux. Mmh. Donc, aujourd'hui, je remarque qu'il y a un déficit sur le plan scénique. Mhm. Les scènes, elles sont toutes pareilles. Il n'y a mhm. pas de scène. La scène live. Tu vois a un problème de... Bon, ça, on va peut-être en discuter, <laughs> mais il y a plein de raisons. Ça peut s'expliquer. Uh-huh. Mais par rapport à la consommation même des, de la musique, c est, c est, je, je, crois que toutes les périodes ont été confrontées, euh, confrontées au même problème. Avant, quand le jazz est arrivé, les gens euh, parlaient mmh. d'une musique satanique. Mmh. Donc, pareil, toutes ces, ces musiques ont évolué aujourd'hui. Donc, nos jeunes consomment cette musique. Après, on n'est pas aux États-Unis où il y a des lois qui, qui, qui interdisent, par exemple, euh, les, les autorité parentale ex, explicite les, les, à la télé il y a les chansons ont des censures mm -hmm. sur les sur les disques il y a des les chansons sont censurées mm -hmm. donc comment faire aujourd'hui même à la télé quand il y a moins de autorisé moins de 10 ans tu vois les enfants de 5 ans qui regardent le même film que, que leurs parents à la télé voilà. donc si amaguñ communication boobu <laughs> kan moo war a xool lan non ça ça c'est un problème culturel quoi mm -hmm. je mhm. crois aujourd'hui les, les Européens ils ont 200 ans de de de en avance par rapport à ça. Voilà. Donc avant c'était ils étaient au, au, euh, je voyais un, je regardais un, une vidéo d'Edith Piaf uh mhm. -huh. qui est qui, qui chantaient une chanson, là, les, les, les, les, garçons des cloches ou les enfants des cloches. Mhm. Mais quand tu voyais Paris à cette époque, mhm. mais c'est compliqué, non da mhm. ngay gis booy si. yaa ngi wax ku yàgg Edith Piaf comme comme Thiaroye je sais pas les kii wu. je je veux pas lancer la la pierre à Thiaroye. Euh, comment comment dire fer réseau ferré bi. les gars ils font leurs besoins raay bi voilà. tu vois les enfants si si si mbedd bi ñu wàccee seen kii. xam nga en France. Mhm. ay tubaab. Mhm. donc pour man évolution la rek. Mhm. on arrive à un moment où on pourra se dire ah on est arrivé au stade où les choses sont codifiées. ou tu vois mais pour moi ça amul incidence quoi loolu météo parce que. Euh, fii culturellement les rappeurs sont même si les les les lyriques sont explicites. Mm -hmm. mais du jéggi dayoo quoi. Mhm. les gens ne débordent pas parce que y a l'éducation comme euh, Amadou disait. Mhm. Euh, l'islam est fort y a am na cër boo mhm. xam ne nit ñi. dinañ dinañ ko jox seen bopp jox ko nit ñi. bien entendu man rek déjà dama doon def ay conneries sama WhatsApp naka sama sëriñ mu ngi ci WhatsApp bi di ma xool tel jour ay wax yu ay silip yooyu mu ne ma bul waxat loolu waaye <laughs> euh, du hip hop sénégalais j'ai posé la question. session dans Aroubed personne ne voulait lâcher le micro. 30 ans de hip-hop, sans disque d'or, uh -huh. ans de hip-hop, sans reconnaissance mondiale. Uh mm-hmm. -huh. On nous a dit à un moment donné du hip-hop, dans ses débuts, ñooy troisième puissance mondiale. 30 ans de hip-hop pour nga gis ku ne la ci hip-hop laa am kër jafe na maanaam kër gi maa ko tabax R plus 2 la. R plus mm-hmm. industrie boobu ñuy wax qu'est-ce qui se passe ba hip-hop bi ñuy célébrer 30 ans aujourd'hui Amatou. Mhm. mënuñu am yenn privilèges yi ñeneen ñi nekk ci yeneen secteurs yi di am. man je vais répondre la question autrement 60 ans de football dans ce <laughs> pays merci je pense à la même chose. <laughs> coupe du monde nag. lu yàlla xam doy jël coupe d'Afrique moom boo jëlee coupe du monde dina ma jaaxal donc <laughs> donc non euh, mm. mais parce que <laughs> question boo xam un peu euh, délicate la. Eh. pour être honnête ah, les gens ne sont pas confortables parce que mm. day mel da nga leen di jéem a xam nga mm. je comprends je comprends dañuy yaakaar ne defuñu dara. alors que def nañ dara suñu deful dara émission bi du am. 30 ans de hip hop bi su amul woon succès Euh, émission bi du am. Uh-huh. ma génération du am aaru mbedd du am Pape Sidi Fall du am. Uh-huh. parce que dem nga def leneen man mi di wax ak yow noonu jibees noonu pour man neneen nañ war a euh, euh, kiiwee jàngatee 30 ans yi c'est-à-dire qu'il y a aussi je pense même on parce que uh-huh. problème bi mooy si secteur lañ nekk mais secteur xam nga la moo koy defar xaalis doole ak xam-xam. ak politique damay ñëwaat ci terme politique bi c'est am solo parce que politique mooy définir affaire yi warul ja warul xëccoo concurrence kenn état dafa war a créer juste cadre bi nit ñi mën a ñëw jàll. Mhm. soo nekk ci dëkk boo xamante ne loi yi droit d'auteur yi mu ngi am na fi nii mais demeewul noonu. Mhm. droit voisin yi demeewul noonu. yow wow mën nga seede 2017 bi ñu génn Mousso présenté concert hip hop bu commencé heure. wallaay tamit tëj concert hip hop bu pare heure. xam loolu problème la. Mhm. ñaata concert nga animé ci année bi. bari vois y' sponsoring bi waxaale ma ko. artistes yi sax suñu xuloo ñun da leen fay et parce qu'il y a des problèmes financiers uh-huh. benn affaire bi mooy boo xoolee en terme de management ñi attan affaire bi bëriwuñu ñu comprendre sax li ñuy def bëriwuñu jibees wax na léegi problème mu live bi mais lan nga bëgg loolu yëpp su amee xam nga dama fekkee benn conférence boo xam ne ñu ngi ko def ci cadre 30 ans yi docteur Ibrahima Wane ak docteur Abdoulaye Niang kii ci laaj leen benn question bi identité bi lu tax nigérian yi comprendre ba seen yoon nan la ñu war a def prof bi ci tontom mu ne il faut copier l'esprit ou lettre lan la war a copier l' esprit la lettre ci li Nigérians yi di def pour man bu ñu bëggee jëm jëm kanam il faut ñu comprendre si lan lañ nekk d' abord lan def lan la moo ko sabab xam nga man ku mel ni man man rabuma rabaanu mais au fond de moi honnêtement du ma ne xaalis bëgguma ko mais je sais que defuma ko forcément pour en gagner de l' argent mm. tout de suite mm-hmm. alors que rappeurs yi man position mun naa leen chaque jour ma ko ci gars yi ñun ñu organiser dañuy dajale sono beeg estrade beeg lumière ba mu mat ñu ne rappeurs yi kaa leen jàpp ci. Mhm. comprendre nga parce que dëkk bi euh, structure moo structure bi moo motul. Mhm. c'est-à-dire que chaînon yu manqué ci maillon bi. Mhm. day mel na création ba distribution. après da ñëw ci production diffusion promotion distribution mais loolu am waaye loolu la ñuy woowee chaîne des su matul mënoo fi wax wax ba am fi économie. léegi album yi ma gëm gis 2017 yu génn man maa ko wax 70 pour cent album yi amuñu hologramme en 2017 des artistes qui xam dañuy autopiraté il sort même plus sur support téléphonique. waaw mais man yi ma mujj gis dama ko dama ko laal. dama ça y est si tu le fais sur support les gens ne viennent pas. mais am na benn marché bu ndaw buy des ba léegi. Mm. xam nga tey si je parle sous le contrôle de JBS tey DJing. vinil ñëwaat na alors que mhm. deewoon na bu yàgg ma adduna ma day day day yaa lu vintage xam nga lu garaaw garaaw yooyu <laughs> waaw dañu bëgg affaire yu yooyu ñu am mais boo comprendre bu baax ci li nga ne par exemple man à mon échelle man yenn saa sax affaire daf may échappé bien vrai que 24 heures sur ci hip bi. dans quoi lañ lañ nekk man loolu laa mënul en fait mesurer parce que aw ay chiffres pour mën ci liggéey. te euh, économie bu euh, secteur boo xam ne amul euh, statistique mënuñ ci liggéey. Mm. cest dire que ñaata album ñooy génn par at album bi gën a jaay ñaata la album bi gënul jaay laata la kan moo gën a def flop kan moo taxaw fi ku nekk Pape Sidi Fall la mais boo amul élément yooyu ñaata son la teg par jour yoo xam waaw soo amul loolu ne nan defee ab étude pour wax ne économie mu ngi fi wala nekku fi hmm. affaire bi loolu moo tax ma ne la sànq xaalis la laaj xam-xam ak doole parce que hmm. doole bi mooy ñiy jóg di motal affaire bi di ko yeewu 7 heures di tëdd 23 heures di ko hmm. ñàkkante ci structure bi parce que gars yi fii dee comme li ma la wax problème bi yëpp mooy de buzz bonul les gens dañoo war a xaalis ak seen album la nouvelle génération en train d'avoir les gens vont te parler de 4 millions de vues 5 millions de vues 3 millions de vues sur YouTube mais alors que moi je ne te pas dans la rue. te mm-hmm. xam nga si hip hop nekk. dafa am ay yoo xamante ne darul gars yi di ci yuuxu noonu amul solo te nga am ay millions de vues alors que wala euh, man yenn saa lu may gënul comprendre en tant que nit. comme comprendre naa benn artiste boo xam demeewul noonu ci ghetto bi la dëkk xam nga artiste rêve la mm-hmm. art pour nga critiquer ko dafa metti mm-hmm. c' est subversif mën nga nekk dëkk benn ci ghetto boo xamante gaañ ci ndox mu taa nga def benn clip boo xamante ci piscine nga nekk pour man loolu du problème mm-hmm. mais quand tu le une fois deux fois trois fois pour man ça devient un problème parce que yaa ngi wone piscine non que tu habites chez ma revenir lu solo laay wax nii ça pas dire que gars waruñu ko def je m'explique très bien dama ne mën nga ko def parce que aar tamit da war a voyager loo nit ñi da war a rêver nit ñi mu fa ma mu may nettali benn débat benn xale Ngaaka Blindé la mhm. ñaanal ko yal na ko yàlla jëlee ci situation difficile bu nekk mais gaa gel bi géej wàllu dëkk dafa moom hip hop underground bi moom loolu filu ko moom il préfère benn calebasse mhm. boo xamante da koy voyager loo il lui fait rêver mhm. xam nga loolu donc ay mhm. état d'esprit musique dafa doy waar moo tax man yenn saa ma bëgg critiquer artistes yi ni mais am yoo xam moom mënu ma ko comprendre lan la qu'est-ce que les gens veulent faire qu'est-ce qu'ils nous proposent en production artistique lan la proposer on, nous propose de ce qu'ils nous ont montré à la télévision ou ce qu'ils nous ont dit c'était pas la réalité du tout. qu'est-ce qui se passe après. après qu'est-ce qui se passe moom mooy. effondrement fracture mm-hmm. euh, de cœur. ñii li ñu ma wax ak li nekk ci ñoom en réalité c'est pas vrai. Mm. pour les 30 ans de hip-hop. Julius mm. DJ. Mm. 30 ans. waaw qu'en est-il des 30 ans bilan comment tu l'as vécu 30 ans sans toutes ces choses que je viens d'énumérer. <laughs> Disque d'or. <laughs> non, mais chiffres, quoi, statistiquement, statistiquement parlant. Ouais, c'est comme Amadou disait, ça, ça démontre qu'il y a un travail euh, qui doit être fait mm -hmm. et que c'est le, dans notre secteur où on est, est, tu retrouves les mêmes problèmes dans les autres secteurs, en fait. C'est une situation de pays sous-développés, là. Mm -hmm. Et c'est dans tous les secteurs. c' est mën nga teg tous les trucs en en en parallèle. Mhm. donc euh, c' est pour ça souvent je, les prix qu'on remet les awards qu'on mhm. remet c' est c' est subjectif c' est pas objectif. Mhm. tu peux pas dire aujourd'hui Pape Sidi yaa yow yaa gagné award ou meilleure vente si lan nga ko teg. loolu ay loolu moom ay kii. <laughs> mais dans les awards il y a même pas cette catégorie. de meilleure vente. De meilleure vente. Il y a, il y ah, oh. Donc ça fait. Donc, tout ça, ça montre les limites euh, pour justement pouvoir créer ces, cette économie-là. Parler de, vente, euh, quand on vendait les cassettes. même quand tu disque d'or c'est truc qui a, soi-disant fait le premier disque d'or euh, comment elle s'appelle Kinelam et son Dogo là mais c'est c'est c'est pas objectif. Mm -hmm. parce que tout le monde sait qu'à cette époque en plus de ne pas avoir des hologrammes la piraterie c'était vraiment à fond quoi, qui était piraté par ton mm-hmm. distributeur même. Mm -hmm. donc euh, pour moi c'est on a on a mis un peu en fait c'est la charrue avant les mm-hmm. bœufs. c'est précipité. voilà c'est un peu la charrue avant les bœufs. Mm -hmm. pour qu'il y ait cette économie là il faut d'abord comme euh, Amadou a dit, qu'il faut qu'il y, qu y ait ces, ces maillons-là, un début et une fin. Mm -hmm. Il faut que ça commence par l'artiste, le producteur, mm-hmm. jusqu'à mm -hmm. la distribution et jusqu'au consommateur. Mm -hmm. Ce cercle vertueux-là, on ne l'a pas encore. C'est une chaîne, quoi. Voilà. On ne l'a pas et justement, c'est ce travail-là que toutes ces structures, notamment Africulture, est en train d'abattre, de, de, c'est former les gens, mm-hmm. justement, à se structurer, à comprendre ce qu'ils font mm-hmm. et à à pouvoir développer l'activité dans le, euh, laquelle euh, ces personnes se trouvent. Mmh. C'est encourager l'entrepreneuriat culturel, quoi. L'État du Sénégal attribue, je ne veux pas faire une comparaison pour comparer, mmh. juste pour comparer, attribue plus de milliard et quelques millions à l'industrie cinématographique Deux. du Sénégal. 2 milliards. 2 milliards. Mmh. Ils sont à 2 milliards maintenant. Pendant ce temps, presque jeunes qui mhm. gravitent autour du hip-hop. je peux pas dire mhm. exactement. Mhm. mais li ma xam ci région wu Sénégal. fi ma jot a dem fépp fu hip-hop mës na salaamaaleykum dem naa fa gis naa engouement bi ñu am ak dévouement bi ñu am ci hip-hop bi ñu leen di jox 300 millions. daaw la commencé. te 200 millions yi lañ jox rappeurs yi nee nañ 100 millions yi mënuñu leen ko woon jox parce que amuñu woon ay projets. donc je lance un appel personnellement. à l'ensemble de l'État du Sénégal cet argent c'est suñu ay dërëm ay juróom ay téeméer la ñu dajale jox leen ko ngeen ñu koy delloowaat ngir appuyer culture urbaine fii ci mm-hmm. Sénégal yokku leen ko te bu ngeen ko yokkee jox leen ko ñi ko mérito i y a des mm-hmm. gens qui ne font rien on se réveille un bon jour on les voit ils se disent que c'est des acteurs du hip-hop ils viennent avec des paperasses bien remplies mm-hmm. vous leur donnez de l'argent et ils ne vont pas faire quelque chose pour le hip-hop ça ça a toujours été mon combat et je continuerai à le dire parce que damay bañ ëllëg ci biir JBS mii rey boppam ci hip hop bi 365 jours ñu fàtte ko ndax amul benn compte bancaire. Mhm. dem fekk waa joo xam ne deful dara. Mhm. ñu jox ko 10 millions parce que moom am na kayit yépp te musul def dara pour mhm. hip hop bi. am na yenn système boo xam ne baaxul ni ngeen koy doxalee baaxul essayer de voir sur le terrain les gens qui travaillent et donner leur les moyens qu'il faut pour qu'ils puissent continuer leur travail parce que sans vous dañu koy continuer ça a toujours été notre existence. le les 30 ans du hip hop au Sénégal vont par l'association Africulture urbaine. Je vais donc laisser la, mm. le, euh, la parole à Amadou pour qu'il nous donne le soin de détailler ça. da ngeen ne da ngeen koy def 30 ans. 30 événements dans 30 lieux différents dans 30 lieux différents. waaw man si tu si tu le permets bëgg naa def benn vraiment parce que. temps yëpp maay dégg coow mais man personnellement ci affaire fond bi uh-huh. man dama décidé personnellement du ma si waxati peut uh-huh. damay laaj ci fond bi sama structure day demandé uh-huh. demandé dana bay passé jox nañu 10 millions mais yenn saa su may dégg coow li damay bëgg comprendre les gens ils s'adressent exactement à qui te man sama bopp rek laa mën a waxal. man déjà au moment où je parle Afrique de Man sous location. on paye 340 000 30 000 internet 12 000 que 500 par mois pendant 13 mois. structure yu ko mën ci réew mi dañ koy compter. je pense que une structure comme ça boo bëggee taxaw laaj fond bi 10 millions après euh, ko wax on pas dans ça mais dama bëgg souvent aussi ñu relativiser tuuti parce que man fond bi xam naa ci lu bëri bokk naa ci rédacteurs yi ñu bind. xalaat fond bi et cetera lenn rek d'accord yow affaire bi warul nekk simplement compte bancaire ak kayit. war na dépasser loolu mais loolu aussi tamit comme yaa ko waxal sa bopp ne argent public la on doit le justifier te état mooy que pour ton info da nga wax exemple bu am solo mooy cinéma da nga wax est-ce que xam nga fonds de des cultures urbaines les textes ont été inspirés sur le FOPICA Fopica bi cinéma bi sax ñu laa jox un amoo compte bancaire te kenn xamuloo ci affaire bi après nag boo existé virtuellement pour man loolu problème la ñu lay jox xaalis bi ñoo tooñ mais woo ko wul deful dara woo ñu ko jox dara. Mhm. mais comme il y a des gens qui travaillent Pape Sidi Fall travaille Jibes travaille je travaille de gens après xaalis tamit moo xaw a noonu. pour mhm. man mën nañ waa fond une première mais là je pense que deuxième bi dañu war a rectifier corriger. Mhm. parce que la moo si am solo parce que yow xaalis bi doo ko lekk. man merci <laughs> man loolu fond bi merci rek. Oh, yow tamit merci. <laughs> billaahi man yàlla na yàlla na dañuy am ñoo xam ne dañuy jaar ci fond bi. par exemple du ma la pour te dire ne parle pas. ils te donnent de l'argent, ils te prennent photo, ils distribuent sax les hip hop qui font ça ah, pour dire diw day kaas rek xaaral mu ngi nii photo mu ngi nii lekk na yooyu dafa ñaaw si suñu hip hop bi ah. xam nga cinéma je pense que ñun ñoo war am maturité mhm. c'est-à-dire que xaalis bi dem ci Pape Sidi wala ci ma wala ci bés ba ci hip hop bi la dem nañ ko justifier ak dugal ko fa am solo mhm. que Pape jox nañ ko joxuñu ko mais loolu problème fond bi yëpp man règle bu kenn jaar ci suuf ak ci kaw ci ginnaaw loolu dañ ko war a tegee ne wala ñi xam bàyyi ñi nga xam ne dañuy demandé ñoom it ba pare ñu leen di teg ci côté naan décideel kan mooy am ñi déposé wul ñu leen di jox ñi nga xam ne dañu déposé il y a des qui n'ont pas déposé on leur donné juste parce que c'est des gens. nangam warul warul demee loolu laa la moo c'est malhonnête mais non loolu je pense que. on doit reposer la question aux gestionnaires du fonds ñiy gérer fonds bi ñoo war a jël responsabilité xam ne alalu askan bi lañ leen dénk. Mhm. bu ñu tegee ay ay ay c'est pour les respecter. Mhm. comprendre il y d'autres fonds yoo xam ministre bi su bëggee dimbali keneen sans mhm. le FDCI mën na ko jaarale foofu. je donne avant fonds bi n'oublions mais ça même c'était onze millions et quelques. mais mm-hmm. def nañ ko am rapport am lépp mosoo dégg coow am si. mosul la radio. je me souviens c'était dans ah, ah, la fond bi liggéey boobu la ñu a def pour man. il doit faire ça. ce parce que suñ ko deful dina liggéey nii yëpp du jëriñ dara. beaucoup de règlements de compte dedans malheureusement warul demee noonu loolu war nañu ko romb 30 après déjà. man xam la moo nekk sama combat instant yi. millions yi dem jóge fi am uh-huh. man loolu moom

Festa dina jëf présentation avec une bonne tête d'affiche américaine et française mm-hmm. donc euh, ñu ngi ñëw léegi instant yi euh, ñu ngi dem Rufisque le 24 incha allah un grand concert au cercle Maurice Gueye mm-hmm. bu ñu foofu du au mars festival de hip hop au féminin mm-hmm. Urban One Week mi xam Ina moo jiite mais bi paa nag kaas quoi ne ko affaire du nekk affaire jigéen kese foo waaw foo foo góor yi donc am na ay battle de DJ am na ay grave am na danse am na lépp et un projet Free Voice. Uh-huh. et cetera pour man loolu li Afrique ban di uh-huh. def la. Uh-huh. léegi ñun li ñu appelé suñu mbokk yi nekk ci communauté hip hop bi mooy 30 ans yi Amadou Fall ba moomu ko. Pape Sidi Fall moomu ko ko. waxoo sa 30 ans man na nga. <laughs> maa ngi def <laughs> yi. Mhm. réflexion foofu la toll. Mhm. lan la parce que ñun bu ñu jàppalantewul xam nga wax ko nii solidaire. Mhm. c' un peu facile. suñ ko deful on va tous disparaître. il faut qu'on s'organise avant que tout explose comme disait X-Men loolu la def donc kenn ku nekk Kulikoro wala ku nekk Matam am idée wu ans yi moo xam man dama koy envoyé logo yi mu dindi Afrique Cuba ba mu set def ci Matam hip hop organiser affaire waruma yëgal waruma tiim sama yoon newu si mu am 10 millions 1 franc xanaa loolu yomb na parce que ma doon def mooy. Euh, trois te bu ma bëggoon organiser 30 ans hip hop dina mooy on a mhm. bu nekk def benn activité ci at bi ça revient à combien 3000 3000 activités ci 30 ans yi am am nañ doole wala amuñu doole hip hop bi. ëpp nañ doole calcul bi jeex na loolu kese la. <laughs> ñu ngi may def signe ne ma émission bi jeex na merci beaucoup JBS. d'être oh, venu nous répondre voilà gis nga ah. Oh. <laughs> j'aurais bien aimé mu gën a gudd. mais si 30 ah. ans yi benn <laughs> mixtape tamit dina si génn. bien entendu mixtape euh, qui va. vrai vrai mixtape. Ouais. que Par je vous. vais faire avec euh, DJ Paul. Mm -hmm. euh, il y aura trois trois volets. il y aura, DJ, il y aura rap, mm -hmm. reggae, raga et soul pour les 30 ans. pour les trois génération 3R quoi. exact. Marissoul <laughs> bi nu mu koy nuyu bu fekkee mu ngi nuyu Amadou merci beaucoup. waaw ñu tajee rek euh, gën a jaale suñu mbokk Malick Sarr. yàlla na ko yàlla

humble serviteur. Bye. Ma génération, ma génération, ma génération, ma ma ma ma ma génération. Ma géné, ma Ok, ok. Ma géné, ma géné. génération, ma génération, ma ma ma ma ma, ma génération, ma génération, ma génération, ma ma ma ma ma, ma génération.